yoona saar juróom ginnaaw loolu yewut yi amoon nañu genn màggal moo tax yéesu demoon yerusalem ca wetu benn ca buntu dëkk ba nag maanaam ci buntu xar ya am na fa bët bu tudd betesda ci làkku yewut te ñu wërale ko ak juróomi mbaar ca suufi mbaar yooyu la jarag yu bari yu deme niki ay gumba ay lafañ ak ay laggi daan tëdd di xaar ndox mi yëngatu ndaxte ci ni ñu ko nettalee benn malaakaam boroom bi daana wàcc léeg-léeg di jax ndox mi bu ndox mi masaa yëngu ba noppi jarag ju ca jiitu wopp joo aman daldi wér ca saasa amoon na fa benn waay bu feebaroon lu mat fanweeri at ak juróom ñett bi ko yeesu séenee mu tëdd te mu xam ne woppam ji yàggoon na lool mu laaj ko ne ndax bëgg nga wér jarag ja tontu ko ne sang bi duma am ku ma soob ci ndox mi bu yëngoo su ma ciy fexee dem ñu jëkk ma ci yeesu ne ko jógal jël sa basaŋ te dox ca saasa mu daldi wér jël basaŋam daldi dox mbir moomu dafa daje woon ak bisu nooflaay ba looloo tax ba yëwut ya daldi ne nit ku wér ka tey bisu nooflaay la te sunu yoon aaye na nga yor sa basang mu ni leen ki ma faj moo ma ni jëlal sa basang te dox ñu ne ko nag ku la ne jëlal sa basang te dox waaye waa ji xamul ki ko wéral fekk boobu yéesu dem na te nit ñu bari teewoon nañu ca barab ba bi ñu ca tegee ab diir yeesu dajeeg moom ca kër yàlla ga ne ko déglul fi mu ne wér nga bul defati bàkkaar ngir ragal lu yées lii dal la noonu nit ka dellu ne yewut ya yeesu moo ko fajoon looloo tax yewut ya di wuta sonal yeesu ndaxte daan na jëfe noonu bésu nooflaay ba waaye yeesu tontu na leen ne sama baay nekk na ba tey ci liggéey kon man itam damay liggéey baat boobu moo tax ba yewut yi gën ko wuta rey ndaxte yëmul woon rekk ci bañ a topp ndigalu bésu nooflaay ba waaye dafa waxit ne yàlla baayam la ba teg boppam yàlla noonu yéesu ne leen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax doom ji mënula def dara moom ci boppam li mu gis baay bi di def rekk lay def li baay bi di jëf la doom ji itam di jëf ndaxte baay bi bëgg na doom ji ba di ko won lépp lu muy def te dina ko won jëf yu ëpp kéemaan yii ngir ngeen gën a waaru maanaam ni baay bi di dëkkale ñu dee ñi di leen jox dund noonu la doom ji di joxe dund gi ñi mu ko bëgg a jox baay bi du àtte kenn àtte bi yépp jox na ko doom ji ngir ñépp di teral doom ji ni ñuy terale baay bi ku teralul doom ji teraloo baay bi ko yónni ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku dégg sama kàddu te gëm ki ma yónni am nga dund gu dul jeex te doo jaar ca àtte ba ndaxte génn nga ci dee tàbbi ci dund ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax jamono dina ñëw te agsi na ba noppi mooy jamono ji ñuy dee ñi di dégg baatu doomu yàlla ji te ku ko dégg dinga dund ndaxte ni baay bi amee dund moom ci boppam noonu it la ko maye doom ji mu am ko ci boppam jox na doom ji itam sañ-sañu àtte ndaxte mooy doomu nit ki bu leen ci dara jaaxal ndaxte jamono ngi ñëw ju néew yépp yi nekk ci seen bàmmeel di dégg baatam tey génn ñi daan def lu baax dinañu dekki dund ba faw waaye ñi daan def lu bon dinañu dekki ñu daan leen mënumaa def dara man ci sama bopp ni ma baay bi di digale rekk laay àtte te sama àtte bu jub la ndaxte defuma sama bëgg-bëgg ci waawi ki ma yónni dong laay aw su seddalee sama bopp sama wax du am maanaa waaye keneen moo may seedeel te biir na ma ni la muy wax ci man dëgg la yéen yónnee ngeen ay ndaw ci Yaxya te seede na dëgg man ci sama bopp soxlawu ma seedees nit waaye nag damay wax loolu rekk ngir ngeen mucc Yaxya meloon na ni làmp buy tàkk tey leeral te nangu ngeen a bànneexu ab diir ci leeram waaye yor naa ci man seede su gën a màgg si ma Yaxya di seedeel maa ngi def jëf yi ma baay bi sant jëf yooyu may def nag ñooy seede ne baay bi moo ma yónni te baay bi ma yónni moom itam seede na ma musuleen a dégg baatam te musuleen a gis xar kanamam te kàddoom saxul ci yéen ndaxte gëmuleen ki mu yónni yéen a ngi gëstu mbind yi ndax dangeen cee yaakaare dund gudul jeex mbind yooyu nag far ci sama mbir lañuy wax te bëgguleen a ñëw ci man ngir am dund ma tagg yu jóge ci nit waaye yéen xam naa leen leer na ma ne amuleen ci seen xol benn mbëggeel ci yàlla mën ñëw naa ci sama turu baay te nanguwuleen ma waaye bu keneen dikkee ci turu boppam ngeen nangu ko bëgg ngeen ku leen di tagg te wutuleen ngërëm li jóge ci jenn yàlla rekk ji am kon nan ngeen mën a gëme bu leen xalaat ne maa leen di jiiñ dara ci sama kanam mu baay musaa mi ngeen yaakaar moo leen di booleeg moom bu ngeen gëmoon musaa dingeen ma gëm man itam ndaxte seedeel na ma waaye su fekkee ne gëmuleen li musaa bind kon nu ngeen mën a gëmee samay wax